asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen fii ñu nekk nag mooy musée des civilisations kenn nekk fii ci xolu Ndakaaru Ndiaye quinzième édition soirée de gala ah meilleur sportif de l'année ñun nag li ñu ci boole mooy ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi ñun làmbali ni def 100 pour cent Modou Lo dañ ko ci nominé ak général Malika Modou Lo ngi actuel roi des arènes général Malika moom ngay gis nii tey moo taxaw ne tey xamewuma ko sax Mansour Kaye général Malika tey ci beneen maanaam feneen la génn waa tey moom man xàmmewuma général tey jël ma ko si kaw ba ci suuf général Malika moom lañ ne ren saison bii jeex wàllum lamb simple yaa ci numéro un loolu waa ANPS ñoo ko def association nationale de la presse sportive général maa ngi lay bëgg di la ziar di la le ci bés bi tey. Babacar maa ngi lay fay ginnaaw bañ sante yàlla jëli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu sunu waay di nuyu suma gaay di nuyu waa Malika yëmbal benn barak Kër ma Massar àll ba ñaax buun waa montagne waa mbëbës di nuyu ñëpp quoi waaw. ngay mbër dugg ci làmb am ambition tey fii xëy na mbër mu nekk bëgg nañu nominer ko mais mu ren yàlla tombale ko ci yow nga ñëw ci milieu bu mel nii solo nii nga solo tey macha allah lii lu mu maanaam lu mu def ci yow tey. waaw kontaan rek avant di nuyu suma tër Baye Seyna Baye moo ma génnee fii quoi ndax dafa yëg affaire bi rek na ma vraiment programme bi boo ciy dem maa lay génnee fii quoi di nuyu nag képp kuy bëggee général suñu soope yi ak suñu ami yi ndax mooy comme li nga wax rek nit ki lépp loo bëgg rek boo ko gëmul amaana pour nga dem ci du yomb te yàlla def na ni mbir mi bañ ciy dugg dañ koo gëmoon fonk ko amoon na ñoo xam ne sax dañu doon tere naa ñu li ngeen di dugg ni est-ce que wóor nga ndax làmb simple dafa métti li nekk dafa bëri affaire yooyu ñu ne ñun ñoo ko gëm ba dugg ci amuñu luñ ciy bàyyi xel dañ ciy jaayante lépp luñ ci góobee rek gar ko quoi vraiment. mu mel ni saison bi bii moom bii jaal moom neex na ba yaa ko gañe waaye saison ren bii nag moom ni mu ubbee dafa mel ni baaxagul ci yow de wala. non sant yàlla saison bi demagul fenn day soog a ubbi saison bi te boo xoolee saison bi dafa ubbi lamb yi tegaloo quoi te man saison daa ubbi dama daan tàmbalee si àll bi ren boo xoolee Dakar laa tàmbalee affaire yi nag mooy loolu noonu mais sant yàlla quoi li am solo mooy liñ daaw ba tax ñu namee ñu meilleur lutteur lutte sans frappe te nit ñu indee fii noonu la ñuy yàlla waat déwén ñu noonu waat ñu ñëwaat fii loolay suñu objectif te dañu ci yaakaar naa ne lépp luñ doon def benn ñu koy def yokk ko quoi mais nag dañuy sant yàlla ndax ki nekk ci kanam la ñuy ki nekk si ginnaaw moom kenn bàyyi wala xel quoi. mu mel ni loolu am na solo waaye tamit daa mel ni kuñ nomine ne la at bi jeex yaa ci dàq bëre kon at bii di ñëw nii bala bi nu nekk nii daa mel ni kon ah est-ce que am nga droit maanaam def lu lu gën a yées li nga defoon. non def ko. mais saa su ne rek da ngay xool niveau bi nga nekkoon ak niveau bi nga nekk du bokk mais saa su ne mooy li ma la doon wax ki nekk ci kanam la ñëpp di bàyyi xel amaana ku ci nekk tey général bu ko daan ba tax tey gars di bët bët bi di dugg ci lu ne di dal lu ne mais ñun yooyu dérangé wuñu ndax ñun làmb la ñuy gëm te bañ koy gëm di ci sonn amaana tàgguwuñu kenn yaa ngi may dégg jàpp nañ liñ defoon daaw ba am lii lu ko raw la ñuy defaat ba amaat ko sa kattanu suñu borom incha allah rabbi am na solo kontaan ci yow. waa di bëggee sama am yi nekk si diaspora bi ndax dañuy sonn ci man ku ci mel ni ku ci mel ni sama copain sama doomu day zungule ak ñoom laat dañuy jàpp ci man ak sama gars yi nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw sama mafia bi suma président fan si kër di nuyu Diall suma grand frère daa dafa sonn ci man ay ñoom Talla jaal Diall Keba As xam nga sama gars yëpp daal ay ñoom papa Ahmed Gueye xam daaw da mbay suma chauffeur xam nga gaa yëpp daal ak as ah, suma chauffeur tamit ak suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaas ndax ku ma jàppale la ku ma taxaw la quoi vraiment ndax àdduna ku amul wéeruwaay rek yomb bu max tax vraiment am naa wéeruwaay Babacar yéen nit sant naa leen ndax yéen ñuy fekk si àll bi yéen ñuy fekk si làmb ji di génn li ñuy def yéen tamit amuñu seen fay waa Leewtoo TV ca kaw ca kanam ci lu baax. ku mel ni Cissé ca Brésil day sonn dama koy gis mu lay défendre fu ci groupe WhatsApp yëpp fu ne laay bu Cissé ca Brésil. xam nga Cissé day sama doomu ndey ba pare xam ma Cissé xëy na ñu bëri ci làmb ji nii lañ ma xamee Cissé dañ daan nekkandoo entraînement daan daje din ya xam qualité yi nekk ci man xam li ma capacité xam li ma am sañ-sañu def. moo tax des fois bu gars yi di commentaire ci yenn leen ci bàyyi ndax daf maa xam. di ko bëgg na la di ko nuyu moom ci Brésil Cissé day daj ci man lu ne vraiment sant naa ko gërëm naa ko. jaajëf waay ko félicité sama yeneen naataango sportif bi nekk fii ñu jëm problème vraiment ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu encore waa kii waa Rock Énergie xam nga exemple énergie parce que lépp ñoom la ñu ci jàpp boobu tey xam nga di liggéey ñu bare ñu ñu laajte la moom kat si ñu ko Sénégal yi ñu nekk ko fépp bu Sénégal nekk rek ñu lay nuyu vraiment kontaan nañu yàlla yàlla ñu jàpp incha allah passé, nous allons maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar Babacar bu baax. tey sa mbër nekk roi des arènes ñu nommé ko meilleur lutteur de l'arène ci saison bii jeex 2018 2019 jox ko trophée ANPS tey loo yëg si lool waa mbégte rek lañ ci yegg euh, ak contentement li nag liggéey bu yàgg la liggéey bu mu liggéey liggéey bu yàgg la ak abnégation la ci def ak jom ak fulla ak fayda moo ko yóbbu fii mu toll. ndax làmb yombul boo xoolee moom ñi mu doon bëreel tey boo xoolee ñi nekk roi des arènes yëpp bi mu buñ ko créé ak léegi moom mooy ki nga xam ni moo ci gën a yor pois bu gën a léger ci taille ak ci pois ak ci lépp donc moom gàcce ngàllaama parce que vraiment euh, li ko ko may mooy liggéey am persévérance yaru téye boppam ba yegg fi mu yegg il est au sommet donc ñun am nañ ci mbégte di félicité aussi nattangoom yi nekk Rock Énergie yëpp mbër yi nga xam ne ñoo fa nekk di félicité aussi encadrement technique bi di félicité toute administration bi man mi nga xam ne maa jiite écrit bi nag honor honoré na ma aussi parce que nag lii bi ñu jëlee écrit beeg léegi yàggul mais gis nañ ci ay jéego yu ñu yàlla dimbali jël na roi des arènes jël meilleur lutteur de l'année l'année di gërëm le maire Moussa Ciss terrain bi mu ñu octroyé làmb daal ñibbisi na parcelle donc gàcca moom Modou Lo di félicité waa ANPS bu baax a baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu organisé. Eh, tamit euh, ginnaaw loolu yëpp en tant que personne morale bu nekk si làmb tey mu mel ni làmb mbër yu mag yi rawatina année balance mu ngi leen di ménager mu ngi leen di yoot parce que ku mel ni suñu mag Ibakan waxoon na ma ko mu mel ni loolu mu ngi bëgg a niru dëgg de eh, loolu noo ko gisee tiito. waaw non tiitu ma mais damay lancer un appel à notre président de la république bi nga xam ne ñoo bokk parti. mu jàppale làmb moom mu lancé benn appel sponsors yi ñëwaat ci làmb parce que sans les sponsors promoteur yi mënuñu organiser événement yi toll noonu parce que événement boo xam ne day tourner aux alentours de trois cent à quatre cent millions mënuñu ko organiser te amuñu ay sponsors yi mag te benn waxu président de la république monsieur Macky Sall rek mën na décanter la situation donc dama koy lancer appel en tant que moom président en tant que euh, suñu président coalition en tant que suñu président parti mu def effort lancé ko aussi Matar Ba ñoom ñëpp ñu jéem a fexe ba sponsor yi ñëwaat parce que mbëri mag yi pare nañ mais aussi promoteurs yi tamit il faut ñu am les moyen pour organiser ces combats. promoteur tu euh, yaa ngi lancé appel mais est-ce que d'une part est-ce que les lutteurs euh, c'est pas le moment ñu xoolaat en baisse seen cachet parce que situation bi dafa compliqué est-ce que c'est pas le moment aussi. non xam nga tey événementiel dafa am am na mbëri yoo xam ne événementiel rek la ñuy bëre. moo Modou mënul bëre lu du événementiel combat bi duré un an préparation bi ak yëpp mënoo ko bëre ak yenn cachet yi xam nga donc moo tax ñu ngi lancé appel sponsor yi rek ñoo mën a régler situation bi. aussi tamit promoteurs yi góorgóorlu nañ mbëri góorgóorlu nañ ba dominer cachet yi mais li ñu war a def ñu munee làmb yëpp ñu waxtaan jéem a xëccaat sponsor yi ñu ñëw pour ñu mën a organiser les grandes affiches yi nga xam ne moom lañ daan def bu njëkk ba. jërëjëf merci ah non kii laay tooñ rek. <laughs> mais gis naa xale yu jigéen encadré la ah waa ANPS. xarit ñi xarit lañ ñi dañoo baax quoi Papis mën nañ ne bras droit wu Modou koo xam ne daal day guerre sax ci biir làmb ji xeex dóorante te tey ngeen nekk roi des arènes ANPS jox leen prix wu meilleur lutteur de l'année mu mel ni kon daal ànd Modou ak Papis. tey de xanaa moom xol war naa sedd wala. waaw xol sedd na xam am contentement bu baax a baax parce que xam loo nekk lutteur xamoo ñaata personne xamoo ñu tànn la ci yow kese xamoo def la meilleur lutteur loolu moom daf la war a ñaax quoi nga gën a góorgóorlu xamoo en plus nga nekk roi des arènes di ñaan yàlla xamoo déwén ñu nekkaat ko jël ko ay lu bëree bëri incha allah. ngeen nekkaat ko ci kan ku ngeen ku ngeen war a jàkkaarloo. ñun ñun de pare nañ disoo Mawlu nii. paral <laughs> ngeen kan Ama. kan pare ngeen pour Ama. waaye yow bàyyi ma waaye pare nañ pour ñëpp nga may ay Ama téye kii pare nañ pour ñëpp pour ñëpp waaw. même bu dul parce que seen ko mag Ama la nit ñi gën wax mais bu dul Ama tam keneen ku ñëw ngeen jël. wóor na yàlla ama gars sax ñoo ci nii rek mais Modou ñu mën a bëreel bëri na quoi pour man loolu du débat quoi wallahi ñu bëgg ko def débat a yokk pour moom dañ jox xaw ma ñaar sax mais yow yoroo góor defe naa. man xale yu jigéen yaa ngi nii taxaw ak man léegi rek. Babacar yow n'est-ce pas sa téléphone ngi tàkk naa la woo léegi wax la jour bi. <laughs> jour bi ñu lay takkal soxna. waaw bu may takk man kenn takkalu ma de bu may takk incha allah. maanaam bu ñu lay ñaanalee eh, ñu dem jaaxle ñaan. waaw man am na lu ne sax damay demaale. parce que non booboo dàq. loolu dara nekku ci. mooy yoon moom la yoon santaan da ngay fekke. incha allah damay demaale bu soobee yàlla. léegi rek incha allah waaw ñoo rafet na ñoo far léegi Babacar. rek bi ñi ay nitu Modou lañu. yow yaay président génération xarañ. Modou Sarr maa ngi lay nuyu di lay ziar. ñu ngi lay ziaraat bu baax Babacar di ñaanal jàmm di ko sakkuwaat ci bu baax a baax di kontaan ci bu wér a wér. seen mbër nekk roi des ñu jox ko meilleur lutteur de l'arène ANPS jox ko prix boobu yën en tant que ñu yàgg àndak moom durant carrière am lu ngeen di yëg ci maanaam lu ngeen yëg ci loolu. waaw kontaan rek parce que comme liñ ko doon wax rek mooy li yàgg ci teen olof yee ko wax baag fekk la ca comme tey ji niñ ko waxee ni rek dañoo gën a bég ci suñu mbër gën a bégaat ci ñi nga xamante tamit ñooy waa génération xarañ parce que olof yi dañuy wax naan gunge yegg baaxu ci mais bii gunge yegg daf cee baaxan te liñ doon xaar ci moom mooy lii tey lépp loo xamante ni tey lu mbër war a tiitaroo ci àdduna la rek yaakaar naa ne moom tegagul na ci loxoom te dañuy ñaan suñ borom trophée yi gën a yokku nu koy ñaanalaat tamit xam nga mu gën a xam nga rek progrès comme ni ñu koy gëyee gën a gën a gën a jëm ci kanam daal affaire yi moom mën ak sàlla gën a jëm ci kanam kontaan nañ trop nga xamee si mooy liggéey bi nga xam si ni tey moom la liggéey ba lii fekk ko tey ji dégg nañ ci baax a baax jërëjëf sëñ bi maa ngi lay delloo ziar. maa yaa ngi am jàmm maa ngi sant yàlla bu baax. yaaram yaaram laa gis de. waaw maa ngi fi maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax maa ngi am jàmm bu baax. bokk nga si tamit ñi nga xam ne ñi tett muudu ci làmb tey mu nekk roi des arènes nekk meilleur lutteur de l'année am nga loo ci war a wax xanaa. waaw sant yàlla rek mu nekk nag lu ma gëmoon ci door ndax xam naa ne amul lu munul ñàkk ci làmb lu mu bëgg ci làmb yàlla mën na ko may ci nangoo liggéeyam nangul ay magam déggal ay kilifaam ak yaram mun na ko may lu nekk ci àdduna ñun desee lu ñu dara lii lañ ko doon ñaanal ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko ay ay trophée trophée yu dul roi des arènes kese làmb am yeneen i titre sax yu dul roi des arènes kese yee am na solo daloo gaar waaw gaar merci merci meilleur lutteur muy deuxième fois plus roi des arènes ci koo xam ne nii carrière bi la commencé tey loolu lan moo ko may Modou ak lu Modou yëg. waaw alhamdulilah d'abord maa ngi lay nuyu Babacar xam sant yàlla la rek xam parce que nit lu muy liggéey lu nekk xam bëgg na ku ko ci wax waa góor te xam nga mbër yi bari nañ dañu jël la ci def la maire de l'heure tombé mu tombé roi des arènes loolu sant yàlla bu mag la daal xam nga en tout encouragement la ci man pour tax ñu yokku liggéey bi waaye. ma gis nga jóg sa président jóg président sa supporters yi jóg say xarit ak mbokku mbër yeeg ñëpp ànd ak yow. mu mel ni Modou tamit ñii ñoo ñuy gis chaque jour bi ngay nekk xale di bëre ba ni ngay màggee ñoom la ñuy gis toujours maanaam lan mooy force Modou ba toujours muy te ay nitam. waaw loolu li naan doole jën ndox la maa ñoom la depuis début xam nga muy metti bu dara du dara xam nga la woon ñoo doon jóg nga daanu xam nga ba yàlla def li tey xam du yàq dara ci ànd bi day gën a neexee xam ñi ànd xam nga di leen ñaanal ñoom yàlla dafa jàmm yu bari ba yéene yëpp yàlla mootale ko ku ne sa yéene sa morom yàlla mootale am na mbër boo xam ne tamit parce que ñaari mbër lañ décerné muy yow ak général Malika ci lutte simple bi kooku tamit loo koy wax koo xam ne sa jeune frère la ci làmb waaw moom it dama koy féliciter xam nga di encourager même ñeneen ñi nga xam ne bokkoon nañ ci kii mais kii wuñu di wax sport noonu la chaque fois